asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw bu nu sante yàlla julli ci sayyiduna muhammad alayhi salaatu wa salaam di jaajëfal seexuna ahmad al qadim borom tuba mbokk yi xam ngeen ni jaale waay ju baax du wees waxtaane gaay ñu baax ñet du wees ndax inda sikra saalihiina tanzilul rahma mbokk yi ñuy waxaat rek allazina iza azabatuhum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbokk yi président alhaaji Bougane Gueye Dany wàcc fii ci biir kër gi fa tabarakallahu ni ko mbokk yëpp defe rawatina mbokki diine yi ak mbokki taalibe yi fa tabaarakallaahu ak mboolem koo xam ni yaa ngi yëngu ci lu jëm ci wàllu état président nag wàcc si tey ngir jaale si Balla Gaye moom mi nga xam ni moom la fi waajuram bàyyi ko di alxaaji Mouhamadou Sakho Double Less doonoon kenn ci réew mi waaye kii ko jaale si tamit doon kenn ci réew mi jog ngir soqali réew mi jóg ngir jàppale réew mi jóg sol aw dàllam ni am réew boo ca bokkee da ngay teel a jóg ba kenn ku nekk jot ci ab cëram kookee nag moo tabbi ci biir kër gi ngir xam ni waajuram moo fi bàyyi ko waaye digganteem ak Balla Gaye 2 Omar Sakho tax mu sol aw dallam wàcc si ci biir kër gi président Bougane ñu ngi lay nuyu ñoo ngi lay siyaare di la jox sa yéeguwaay wi la sunu borom subhaanahu wa taala jox lii nga def rëy na waaye yàgg naa rëy sa digganteeg Balla boo toogan sa biir kër Balla sol aw dàllam ànd ki mbokkam ñëw jàkkaarloog yow ñu la siggil ndigaale nga ne ko siggil sa wàll ndax yéen a bokk waajur wi kon boo bàyyee lépp sol saw dàll ànd ak Seydina Alioune Diop mu baax mi ànd ak mbay mi nga xam ni kenn la ci biir njaboot gi kenn la ci kër gi fekk si Balla ak magam ju baax jii di Baboy fekk si waat fa tabaarakallaahu magam jii di Liiru Jaan ak sëñ Mbàkke Jóob ak buuse mi nga xam ni fa tabaarakallaahu këccëb kenn ku nekk xam na digganteem ak Balla ak Lamine mi nga xam ne mu ngi ci biir liggéey bi te mboolem luy bànneex ak naqar saa boo demee fekk ko fa moom Lutte TV mu ci liggéey liggéey bu rëy kon fa tabaarakallaahu ñu ngi la koy jaale yow it di ko sigil ndigaale di ko mastaw tax na kenn ku nekk it mën a wax ci yow ndax sëriñ Muudu Moustapha taaw si Ahmad Bamba daana wax ni kenn ku nekk da ngay defar sa jëmm ba ku la gis bëgg la nga defar sa ko ba ku la miin dootu la mën a muñ te loolu lépp séentu nañ ko ci yow loroo kenn gaañoo kenn boole yar ak yiw ak gore ak mën a seq ñëpp te sëriñ Sidel Moxtaar daana wax ni ku yarawul du yor dara ku amuli teggin du teggi dara nga bokk fi nga bokk nag bokkook moom ndax Moustapha Aminata Lo la ak Baara Aminata Lo Moustapha Aminata Lo moom la ñu jox soxna Fatma ma am ca Seex Mbàkke Gaynde Fatma borom naas bàyyi Sëriñ Mbàkke soxna Lo borom tey fag bay laa sa yaakaar Baara Aminata Lo moo jur Sëriñ Basiiru Baara mi mu doyloo tey yaakaar ko àdduna ak kon diggante sëñ Bamba diggante taalibe bi sëñ Bamba ak mbokkum taalibeem kon bugaan wàcc nga fa tabarakallahu dañuy wàcc sunu kàddu foofu delluwaat rek di ko jaale sa wëllëre wa sa xarit ba ci digganteem ak Balla ak digganteem ak yow muy Abdoul Aziz Aly Ndiaye di kenn koo xam ne ci réew mi di kenn koo xam ne ci géejaway saa bu solee aw dàllam di dem bu wax baree du moom waaye bu jëf rek Abdoul Aziz la ku xool lii mu def ci digganteem ak sëñ Bamba di ko def ci digganteem ak maam Limaamu Laay di ko def ci digganteem ak maam Bukunta Njaasaan ak seex al islaam mboolem lu wan a xew ci ëtti diina yi mu ànd ak njaboot gi ànd ki i waajuram ànd ak i mbokkam jiital ay trangaam dem yobbul boo ko nee loola ñor mu ni li rasulillahi alayhi salaatu wasalaam waxan aljamaatu rahmatun wal firqatu azabul mbooloo mu ngeen gis ñu doon benn di bégalante ki seen biir yërmande day wàcc seen biir waaye saa bu nu teqali ay mbugal rek lay jur waaye ñu mën a jël addis ba nag dénkaat la ko ndaxte loola ngay dox te loola ngay wax mooy lan al muslimu man salima al muslimuuna min lisaani wala yaadihi ñu ni ko nabi loo bëgg wax mu ne ab julit dëgg fa tabarakallahu julit yëpp dañuy mànkoo mucc ci ayu gémmiñam ak ay loxoom président Bougane loroo kenn gaañoo kenn xeeboo kenn beddiwoo kenn sa bëgg-bëgg mooy réew mi àdduna ñëpp am jàmm te yaa ngi koy wax yaa ngi koy jëf yaa ngi koy dox kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi ziar bu baax di ziar ñu ñu fi fekk euh, di ay nit ñu am njariñ ci taxawaay ak ci seen ànd ak Omar muy Boucher di Ketchup di Cheikh Mbacke waaye naka noonu fekk fi la Gaye numéro deux euh, moom dañu am lu bari loo xam ne seq nañu ko muy suñu mag euh, tette ñu teg ñu ci yoon kon dañu koy sant bu baax a baax euh, ñu ñëw fii nag muy suñu kër parce que dañu jàpp ne woote gi rekk doyut lii bu dalee ci kaw Omar ci kaw senegal yëpp la dal nde Omar Omaru senegal bañ nga ba ku moom dangay jàpp ne ni mu mel ak yow yow rek la ko mela maanaam li ñuy wax ndawal la maanaam boo ci dajee rek da ngay yaakaar ne yow dong yaa téye loolu nag li ko ko may moom Omar mooy dalam mooy yaroom mooy ouverture am mooy sincérité am surtout bi nekk ci moom waaye loolu ku ne xam na ne dañu ko def ci moom te ka ko def ci moom tey jii moo tax ñu sol suñu dàll ñëw fi parce que jàpp nañu ne woote gi rek doyut euh, defe naa bii mooy ñaareelu yoon ma ñëw fi euh, parce que bi ñu fi ñëwee daf ko fekk mu génn parce que dama ne bu may dem ci Omar di ko jaale ji duma ci def protocole duma ci waaj duma ci woote damay jóg sol suma dal dem parce que xam naa ne kër gi sama kër la xam nga bu fekkoon ne keneen la xëy na danañ ci dugal protocole waaye moom ni yàlla def suñu diggante mu it lu yàgg di nit ku am kóllëre kon bu lii dalee ci kawam euh, jaadu nañu biral ko ne senegal yëpp bokk nañoo ak moom tiis wi bokk nañoo ak moom naqar wi xëy na du tax yëf bi gën a woyof waaye dana ko wàññi jàppal ne daal Sénégal ñu ngi ànd ak yow ci tiis yi nga xam ne dal na ci sa kaw di suñu papa jooju nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu boroom teeru ko ci aljanay si foofu mu jëm gënal ko lool fii nga xam ne foofu fi la jóge waaye di am yaakaar ci yéen lool njaboot gi mu fi ba nde mooy lima wax léegi rek yar gi mu def ci yow ak dal gi mu def ci yow tax nañu gën a am yaakaar waaye surtout diine ji ak bëgg Serigne Touba gi mu def ci yow kon tax na ñu gën a am yaakaar ci moom ne Cheikhul Khadim dana ko teeru cheikhul xadim dana ko dalal eh, ñuy ñaan suñu boroom bàyyi la fi yow it kàttanal la nga yàgg fi lool eh, li nga mbébét ci sa wàllu carrière yàlla taxawu la ci ñi nga àndal ñu encadré la di waxtaan ak yow di la teg ci yoon te ki ma ci gën a xam gën ma jege muy suma frère euh, Ale Abdoul Aziz Ale moom xam naa ne boo koy déglu doo juum xam naa ne boo koy déglu li gën ci yow ak li gën ci sa njaboot dong la lay wax parce que xam naa euh, mind spirit am xam naa naka lay xalaate kon lu lay yokk dong la lay defal may sakku daal nga jottalil ma suma kàddu njaal njaboot gi yëpp te nga xam ne euh, nañu nekkee woon démb ak bërki démb frère nga am xarit nga am doomu ndey nga am bëgg naa saa soo gestoo ci loo nekk gis ma ci sa wet xëy na tey e, responsabilité yi gën na yokku euh, li nekk suñu mbagg gën a diis waaye jàppal ne daal euh, fa ñu la tegoon démb fa ñu fa la ñu la teg ba tey te xam naa ne yow it na nga ma jàppe woon ba tey it noonu nga ma jàppe kon yàlla na suñu borom dëgëral ànd bi yàlla na suñu borom suuxat lépp gis nga bi may ñëw dama lay indaaleel sa copain waaw <laughs> jërëjëf ngi leen di sant bu baax a baax a baax jëf jërëjëf jërëjëf. jërë jëf sama mbokk géwél yi <laughs> maa ngi di siyaare bu baax dinañ jox seen wàccuwaay ndax géwél moom fu mu nekk ah ku baax rek a fa nekk ba tax na yéen moom kenn amul seen fay sëñ Bakki maa ngi lay siyaare di siyaare bur géwél Bougane Dey Bougane Gueye Dany euh, président maa ngi lay siyaare baax di nuyu Mbaye Sène di nuyu Balla Beye numéro 2 suma mag suma xarit ak Lirou Diane ak Boucher kilifa yi mandal donc di nuyu Sénégalais yëpp euh, Bougane nag euh, dafa def loo li nga xamante ne rek wax dëgg yàlla bëggul may wéet di xalaat wala yu demee noonu. ndax li ñu sekk ëpp na sax lii parce que yàgg nañu du tey mbay seen noonu daanaka famille la daaw ñu toog jour buñ daawul gisee loolu Sénégal yëpp xam nañ ko waaye kon àdduna kenn ku nekk day ñaan yàlla xat ñaan yàlla nekk ca yitte ñaan yàlla ñàkk jot ba tax na nag dëgg yàlla yitte mi mu bàyyi yëpp nag dox ko ñoo ko fii loolu mooy ne yëg-yëg la ak wan ne aussi tamit lépp li nga nekk maa ngi ci àdduna nag nakar ak bànneex ñoo ci am dee dafa nekk loo xamante ne nag lu mënta ñàkk la ci doomu aadama waaye kenn yéenewu ko kenn ndax ñun ñëpp a wuyu suñu borom maa ngi lay santit aussi di la gërëm ci déplacement bi nga déplacé démb la fi ñëwoon na ma maa ngi sa kër ma ne ko maa ngi nii golf mu ne ma kon maa ngi dem dellu ba suba te pour pourtant téléphone boobu rek ak ba dérangement am jot loolu rek doy kon tey loolu mu lay won ne rek lépp li nga xamante ne moo ngi koy def ak man rek jàpp na ne tey loolu lu yàggal la xam nga yéen ngi naan Balla mais Omar la may wax parce que koo xamul doo xam turam dëggantaan mun nga koo xam nag nii nag par hasard mais Omar la may wax kon donc vraiment maa ngi koy ñaanal yàlla lépp lu mu bëgg rek euh, yàlla defal ko ko ci barke Yonent bi sallallahu ndax nekk na ni koo xamante ne ku am ambition la ko gëm boppam la li nekkul c'est la première fois ndax xam fu mu jugee fu mu départ ak fu mu tàmbalee ba yàlla def li muy def nii kon ku gëm boppam rek moo ko mën ak ku xam boppam damay dégg gaay naan sax euh, diw dafa gëm boppam léegi damay déglu waxkat kilifa yu mag yi dañ ñaan ku xam boppam ku xam sa bopp nag moo tax doo bëgg tooñ doo bëgg kula la waaye bokk na si ñi ñu xam boppam man lu nekk laa koy wax ni nga koy gis nii kon donc vraiment ñoo ngi lay yàlla daal yaa xam loo bëgg yàlla na suñu borom defal yàlla na tànk yiw yàlla na yàlla ci barkent bi salaay salaam seen c'est mon loolu yàgg na donc dañuy ànd di kaf di foo di ree di defante lépp donc daal lii mooy rek mbay mbokk rek a daje ak ay xarit ñoo fi daje vraiment kontaan naa trop euh, maa ngi lay ñaanal daal yaa xam loo bëgg yàlla ko suñu borom defal ndax xam nañ ne jot amul yitte yi li topp sa ginnaaw bëri na ñàkk nga jot mais daalaa jaral nga def dérangement vraiment ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom yàlla na yàlla dafa la jàmm ak say morom ci barkent bi sallallahu alayhi wasallam jërëjëf Bougane merci vraiment. التي إليه نازل مصابي يوث اللهم صل على سيدنا محمد الفاضل لما حق القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آمين. Yàlla na ko yàlla xare àjjana.